travail à la CRBC, à dire Chain Road and Bridge Corporation de l'autoroute. Touba. Aujourd'hui, on a eu à faire un point de presse. Voilà, c'est les différents représentants du collectif des travailleurs. Donc nous sommes là aujourd'hui faire faire ce point de presse pour dénoncer ce qui se passe exactement au niveau de l'entreprise actuellement. Vous savez que le, projet autoroute était conçu sur une période de 5 ans. On a eu à faire des sacrifices, d'énormes sacrifices, des heures chargées pour réaliser l'ouvrage sur 3 ans. Maintenant, c'est le fin de projet d'ici le 25, c'est la, fin totale du projet, et que le promoteur, chinois, c'est-à-dire l'entreprise chinoise, CRBC, dit qu'ils ne vont pas payer les indemnités de fin de contrat. Donc ce que nous refusons catégoriquement, voilà, ce que nous refusons catégoriquement, parce qu'il y a une période antérieure qui a été utilisée, c'est-à-dire on a, travaillé une période antérieure de 9 mois et plus, sans contrat écrit. Donc, sur le code, dans le code du travail, ces contrats qui n'ont pas été écrits doivent être considérés automatiquement comme des CDI. Donc nous, nous demandons la requalification de ces contrats en CDI pour qu'on puisse bénéficier de nos indemnités de fin de contrat. On a eu à discuter avec la direction. Euh, ce qu'ils ont dit, ils ont dit niet. Ils ne vont pas payer les indemnités de fin de contrat. Actuellement, on a eu à faire des... à balancer l'information. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de retour. Donc, pour le moment, nous interpellons d'abord le président de la République. Parce que je pense qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de la situation qui se passe actuellement et que je pense que lui aussi, il ne va pas sacrifier ses fils biologiques au profit de ses fils d'emprunt. Les Chinois sont des étrangers, c'est une entreprise étrangère qui est venue au Sénégal. Nous, nous sommes des Sénégalais qui gagnent dignement leur vie. Donc je pense qu'avec ce grand projet-là, qui est, en, qui donc je pense qu'ils doivent nous donner quelque chose. Ils doivent donner des indemnités. Actuellement, de Thiès à toi, on est plus de 2000 travailleurs. Voilà ils nous doivent les 7% de nos, de, nos, de, nos, de, nos, salaires, les 7% de nos salaires, de nos différents salaires qui ont été perçus. C'est ça l'indemnité de fin de contrat. On a travaillé plus de 3 ans. Il y a des gens qui ont, qui ont fait 2 ans, 2, 3 ans. Il y a des gens même qui ont fait plus de, normalement 4 ans, ici au niveau du projet. Voilà. Donc nous avons enregistré des décès, nous avons enregistré aussi des blessés. Et ces gens-là n'ont pas reçu aucun sou d'indemnité, en guise d'indemnité. Donc je dis que ça, c'est une situation à déplorer. Des gens qui ne, qui, ne peuvent même pas se déplacer actuellement. Maintenant, la période antérieure qui a été, qu'on a eu à travailler, il y avait un protocole d'accord qui a été signé. Ce protocole d'accord, c'est un protocole d'accord qui est bidon. C'est un protocole d'accord qui est sans aveu. Donc nous dénonçons ce protocole d'accord-là pour qu'on puisse requalifier nos contrats, pour qu'on puisse bénéficier de nos indemnités. c'est ça, c'est ça quoi pour le moment, nous, sommes en train d'interpréter les autorités, calmement et poliment. Aujourd'hui même, nous allons rencontrer le Khalif général de Mourit pour lui parler de la situation actuelle avant l'inauguration. C'est confirmé. Après ce point de presse, nous allons à Touba pour voir le Khalif général de Mourit, pour lui parler exactement de la situation qui se passe. Parce que lui aussi, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de la situation. Donc avant l'inauguration, nous allons partir lui parler exactement de la situation qui prévaut actuellement l'entreprise Maintenant, avant l'inauguration, mais après l'inauguration, si rien n'est fait, nous allons faire d'autres plans d'action que nous n'allons pas dévoiler ici. Oui. Voilà. Oui, oui, problème parce que nous avons ni ba chantier commencé ba le depuis euh, commencement euh, travaux ont ba léegi l'entreprise. voilà parce que comme nous avons dit, les travaux yi avons 5 ko xayma ans donc 2016 nous avons ni xam 2014 commencé à euh, débuter bi voilà ba 2019 normalement la ñu waroon a nekk fait de chantier actuellement def nañ benn rendement boo xamante ni ci trois ans daanaka la ñu liggéey autoroute bi donc loolu noonu rendement la satisfaction la tamit aussi donc ci 2019 bi comme président Macky Sall instant bii nii euh, pare na pour inaugurer euh, autoroute bi le 20 décembre bi ñu ñëw incha allah donc. instant bi ñun ñoo ngi fay de chantier donc le 25 prochain bii ñu l'entreprise la entreprise bi pare pour tëj buntam arrêté contrat fay de chantier yëpp donc et que boobu noonu tamit ba léegi jànkonteeg nañ fi problème yu bëree bëree bëree bëree bëri parce que déjà li li njëkk anormal ci entreprise bi comme man mii di wax ak yow par exemple ak sama collègue yi nekk ci ginnaaw yëpp ay contrat 3 mois la am comme par exemple début début début chantier comme contrat d'essayage contrat d'essayage ñun loolu la ñu waxoon début chantier bon ñu pare ci contrat d'essayage boobu noonu yaa naa yaa naa ñeneen ñoo xamante tamit contrat 6 mois lañ leen signé donc man mii man di wax ak rek man par exemple mun naa jël exemple ci man contrat 3 mois laa signé 2 ans 6 mois am ñeneen ñoo xamante tamit 6 mois 6 mois ba mu mat ay 2 ans et quelques voilà ñu jógee ci foofu noonu comme feere chantier bi ñoom ñu ne mënuñoo xayma xam chantier bi maanaam exactement kañ lay jeex am ñenn yoo xamante comme man tamit signé un mois contrat un mois ba mu mat 6 mois yoo xamante ni mais renouvelé naa démb sama contrat mais contrat une semaine laa signé contrat une semaine laa signé te dañ koo validé mais loolu fan la existé loolu existé wul fenn ñun loolu la ñuy la ñuy moom la ñu bëgg parce que comme euh, chantier bi daanaka jeex na te le 25 lañ koy inauguré ko daanaka ñun bu ñu kaasul suñu droit voilà dañuy ñibbi ak suñu loxoy neen te jànkonte nañ euh, jànkonte nañ fi ak lu nekk bokk ci autoroute bi am na suñu morom yoo xamante ni fi lañ ñàkkee seen bakkan. am ñenn ñoo xamante fi dañ ñàkkee seen am ñenn ñoo xamante ni leen ak leen fa dañuy dal te ñun maanaam suñuy waajur ci ñun lañ yaakaar parce que tey ñun suñu parents sax buñ waxee ne leen dañuy liggéey dañuy chaque jour ñoom ñoom duñ ko mën a gëm fii daanaka 30 jours dañ koy liggéey dans le mois boo ci noppaloo benn fan lay doon 29 jours dañ koy liggéey dans le mois sans noppalu donc loolu kon rendement la ay prime lañ lay naxee ay yoo xamante ne sa salaire pour nga jot àll bi lu nekk ngay jànkonteel chinois dañ lay saaga ngay muñ ci muñ pour mën a pour pour bëgg a liggéey lu nekk ngay jànkonteel da muñ da def lu nekk ngir lan ngir liggéey ngir bëgg liggéey ñun bëgg nañu liggéey franchement entreprise bi tamit wax dëgg yàlla bañ fi nekkee ba léegi musuñu fee jël musuñu fee def leen loo xamante ni lu tegg yoon liggéey nañ fi ba ni chantier jeexee donc nañu fay suñu droit donc indemnité yooyu a fay parce que pour

ak seen salaire total boo ko boolee sa ay cent trente mille waaye léegi yow imagine nit ki nga xamante ni mu liggéey début chantier début terrassement ba léegi ak rendement accident de travail sacrifice yu bëri nga sacrifié ko boobu noonu ba léegi ñu fay ay cent trente mille franc nga ko yibbi waalee sa kër mais noonu ñaaw na rafetul te du yoon donc ñun loolu ñun la ñuy kaas voilà parce que comme ni ko waxee sànq am na suñu suñuy collègues yoo xamante ni gënuñu leen ñun suñuy collègue am ñoo xamante ni seen tànk fi lañ ko perte voilà y en a yoo xam ñun nag ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax parce que ñoo ñoo ñu ngi ci phase bu fin de chantier donc ñun budul dara ñun grève ñu comme ni ko gars yi waxee sànq defuñu dara mais ñu lançons un appel dañuy ñaan ci njëkk ak teranga Macky Sall dimbali ñu ñu mën a jot suñu droit mën a jot suñu indemnité tëjee ko chantier bi mën a dem xooli leneen parce que euh, fi mu nekk nii rek ñuy wax ak yéen am nañu audience Touba xalif bi pare na pour recevoir ñu donc ñu pare woon nag ñun balaa ñoo def dara parce que instant bii nii comme gars yi ñoom ñoo ngi préparé le vin pour inauguration bi ñëpp mënuñu woon a teew tamit ñun ñu teew représenté maanaam entreprise CRBC bu Thiès ak Bambey Diourbel maanaam gars yëpp ñu ñoo leen représenté fii ñooy wax ci seen kàddu donc moo waraloo ñu ñëw taxaw fii nii pour mën a kaas ci turu entreprise bi yëpp ñu li ñu recommandé leen la mooy nañu fay suñuy indemnité suñu waaye dañoo bañ a fay yëpp ñoo ressemblé wu pour kaas pour ñu mun ñoo fay 7 à cent sur ak euh, salaire voilà ci ci diiru 3 ans. pour l'instant nii nag moom moom moom mënaguñoo wax lenn parce que gars yi ñu ci bëri fi mu nekk nii dañoo jàpp te affaire mbooloo la voilà moo waral mënaguñoo publier mënaguñoo waxagum lenn amaguñu maanaam benn décision ci loolu pour l'instant daal lenn lu ñu mën a wax mooy ñun saagawuñu xeexuñu xuloowuñu maanaam ñun lépp lu ñu bëgg a def dañ koo bëgg a def ci démocratie ak ci njëkk teranga donc suñu droit ñun moom la ñuy laaj moom la ñuy exiger comme Sénégal fii ñu bëri ñu ñaan chinois ñoo def nangam fii chinois liggéeyuñ fi dara y a des géomètres des techniciens ici des des des des génie civil yoo xamante ni ils ñoom ñoo nekk ci entreprise bi chinois bu ñu xëyee suba bu ñu la joxee programme seen biir oto la ñuy toog liggéey bi ñoo ko yor du 7 heures à 18 heures nous travaillons du lundi au dimanche ferme da koy liggéey sans repos donc kon normalement nag normalement wax dëgg yàlla am na autoroute Ila Touba ni bu ñu ko déggee ak bi muy pare benn lay doon donc Moral.